وجنة عن هالك المريد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñoo ngi amaat mbégte toogaat fii ci kër Serigne Touba Khadimou Rassoul dina ci jumaa ji ànd ak euh, bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko tànn muy junnatul liman nasamahu te jëm ci lépp loo xamante ne bii jafe-jafe doomu aadama yi nekk ci Touba te dogal suñu borom wàcc ci ñoom ñu war koo saytu taxawal ci Cheikh Mouhamadou Mountakha taxawaay yéen ci a taxaw xam ngeen ne kuréel boobu Cheikh Mouhamadou Mountakha bi mu ko tànnee Serigne Abibou Mbacke mu nekk président bi ginnaaw bu ñu ci waxtaanee ba déggoo ci mu ànd ko ak waa daayira Nooru Daara yi Touba ci kanam yëpp waaye ñu ànd ko itam ak waa daayira bi nga xam ne Serigne Youssou Diop ma nekk ci bopp bi ànd ko ak commune Touba bi nga xam ne nag ñoom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu dëkk te ñu ci taxawaay yu ràññu waaye xam ngeen ne booba fekkoon na Touba ci kanam ne woon ci liggéey waaye bi mu déggee baatub sëriñ bi rek la ne nañ boole waat sunuy yitte yëpp dem nos ko ci kuréel boobu nga ne moom la sëriñ bi nos ba liggéey bi mën a sotti nekk benn loolu moo tax tey jii daayira Nuuru Daarayni Touba am liggéey bu am solo boo xamante ne bii doon nañ ko def ñu ne nañ fab matériel bi leen doon def lépp ñoom jébbal ko commission bi nga xamante ne bii ñun ñëpp dañuy ànd ko ci benn bànn loolu it dana ànd ci lu am solo doo xamante ne bii ay at yéen a ñu doon jaar seen loxo ñu war koo jébbalaale commission bi ba ñëpp xam ne daal benn bunt moo am muy buntu junnatul liman nasamu képp koo xam ne yaa ngi yëkkati seen addiya di ko jëfe bu fi jaaree dana àgg ci loolu moo tax dañuy jox kaddu bi ma Mamour Mbacké moom Serigne Modou Moustapha Fall bi nga xam ne moo jiite daayira bi bu noppee ñu jox Serigne Abdou Fatah mu lim li nga xam ne moom la nooru daara yi andi su noppee Serigne Youssou bi doon leen topp incha allah rabbi kon ñu bàyyi kaddu bi ak Serigne Mamour Serigne Moustapha Fall kon moo tax nag xas yéen lépp lu ñu wax dana ko def te mu laal jëm ci liggéey boobu lépp dafay jëm ci politique boo xam xaalis la boo xam matériel la boo xam personnel la boo xam ministère la boo xam programme am tool yi ñoom liggéey bi suñ bi am ci lépp moo tax ñu ma yor sama kanam nag ñu daal di dem waaye nag fekkoon na amoon na programme bi ñu ngi ci laaj ñu jiitu kuréel gi taxaw waaye mu ñëw nag tombé kuréel taxaw ñu dem ak ñi ñu ñëw juróomi weer parce que jëbbal ko def moom itam nekkoon si matériel bi xaalis bi saytu ko lépp loo xam ne dañ koy def dañ ci liggéey bokk man itam dana ko indi jébal kuréel bi si moom si yàlla loo xam man noonu moo xam nekk loolu tamit kuréel bi bokk mooy xam nañ koy doxal man itam nag lépp loo xam ne moo ci war si war a lépp dana ko kuréel bi ñeen ko geesewaat mais ndax loolu tamit lan rek moo ko waral ñu bëgg xam ne ba ñu sóobu ci liggéey bi diñu sëriñ bi amul dara lu ñu sant bàññi ko bokkal nag ñu si tànn ak maire bi Touba sëñ sëñ Mbacke bi nga xam ne moo ko sewal sëñ Cheikh kon ba léegi moo ànd ak ñu liggéey maa ngi sant maa ngi ko sëñ mu taxaw ñu ngi ko sant nag di ko seereel loolu dafa maa kenn daal suñ si gënee rek fekk sëñ bi di am lu ñu si lii ñu am li ñuy tëgg ko te fu si yoon nag ba dañoo mokk dund am ko fa laaj bi moo tax moo topp ci man ci liggéey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 sant Serigne Touba sant gis nañ jaayante moom ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool tënkee ko ñu ngi santal bu baax sax suñuy kàddu yi kàddu yi Serigne Mame Mor nuyu ci fi teew yi fi teew yëpp jiital ci Serigne Cheikh Touré mu wàcce bi fi teewal Cheikh Mamadou Mountakha ak Serigne Abdoulaye Kane Serigne Moussa Diop ak mboolem kilifa yi fi teew di sant bu baax jotaay bi yaa xew woon feneen ci leneen sax cant bi day war ci am ndax kii sol sol daal fas yéene di mënte ci faj yu bëri bu faree nag ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Xaar ndax li boo dimbali Sëriñ Tuubaa bu boobaa yiw boobee man ngaa rafet jot ci ne noote naroon am suñu borom dana la jël ko fa ngeen bi daa yëngatu bàyyi ci yeneen boo jógee di dox man a dox ci ak bëggam ginnaaw moom ngay làkk yooyu nag xëy na ci la Touba Ca Kanam doon li jël ci ànd ko di ci dox li mbir mi leeree nag léegi dañuy daal di jël lépp nag soobu jébbal ko kuréel gi fas yéenee ànd ak ñoom loolu moo tax nag kon dañuy tàmbalee ci wax ni Touba Ca Kanam ba ñu juddóog léegi ba dox tuuti rek la daal di taxawal kuréel goo xam ne da ko tuddee woon wàll di def liggéey bu mel nga xam ne moom Cheikh Mountakha euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha loolu danañ lim mbooloo mi nga xam ne ñoo cay liggéey ak anam nga muy doxee jëbal ko kuréelu junnatul liman nazamahu gi nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Mountakha taxawal bu ko defee bu boobaa lépp luñ ci yëkkatee mbaa ñu ciy dox kuréel ci lay bàyyi ko mbooloo moomu tolloon nañ ci fukki nit ak ñett dolliwaat nañ ci juróom ci tolluwaay bi mu fukk ak juróom ñett ñoo xam ne seen yitte jëpp mooy saa suñu xëyee dem ci bërëb yi nga xam ne fa la gën a méttee ñu samp fa ay moto pompe tàllal di jël ndox bi di ko yóbbu ci canal yi nga xam ne moo fi nekk ginnaaw bi nga xam ne Touba Finane tamit moom tamit li nga xam ne yor nañ ko ci ay moto pompe yu mag man ndax ñoom ci a liggéeyee mooy moto pompe yu mag yi nga xam ne dañ koy def ci yenn quartier yi yenn mel ne ay Daaru Fudus fu mel ne Daaru Minane fu mel ne Dég Dakar mel ne Sura bërëb yooyu dañ fa pompe yi dafaa féete nga xam ne diirum nawet bi fa lay nekk toll na ci lu mat ñaar fukki fukk ak juróom yu mag waaye yeneen yu ndaw ndawaan yi nga xam ne tamit day alterner di dem ak dikk toll na ci lu ñaar fukk ñu yor ci ay ay jumtuwaay yi yoo xam ne yenn yenn ay tiwo dijj la ñu yor yoo PHD toll na ci kilomètres yenn yi ci des toll juróom-ñaari kilomètres mooy dix mètres tiwo yoo xam ne mooy accompagner liggéey boobu ñoom tamit yoroon nañ ci yeneen jurtukaay yu mel ne benn auto boo xam ne saa su xëyee mooy yóbbu mbooloo li kenn ku nañu placé dafa ngay placé te léeg-léeg bu ko jamono laajee sax dañuy fanaan nga xam wala bu ñu fanaan tamit dañuy danañ guddee lool ci yenn bërëb yi am nañ tamit camion gris boo xam ne léeg-léeg yëkkati pompe bu mag war koo placé ci bërëb boo koy liggéey am nañ tractopelle boo xam ne bu laajee gas wala déplacé wu jumtuwaay bu gis tamit moom mooy mooy mooy def lu mel noonu ci wàllu carburant tamit Touba Ca Kanam moo koy assuré moo ko daan assuré waaye lu jëm ci loolu ñoom mbooloo moom nga xam ne ñu ngi cay liggéey tamit Touba Ca Kanam moo leen daan yàlla ca ñoom ci liggéey boobu nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy kuréel gi nga xam ne moom lañ duppee woon opération wallu ñu amoon ay gilet Touba ci kanam yoo xam ne gis naka tey dañ koy suuli sol gilet junnatul liman nazamahu fas yéene nañ nga xam ne duutu ñu identifier Touba ci kanam waaye junnatul liman nazamahu dañuy dañuy dañuy identifier ci liggéey bi ci moom la ñuy wax ci moom la ñuy defati dindi ndax mooy Cheikh Mamadou Moussa joxe digal ginnaaw loolu ci taxawaloon nañ makkaan moo xam ne jubluwaay ba mooy lu mel ni bu amee ñu mën faa fat ñi nga xam ne dañoo toll ci ay dañoo am jafe-jafe ba mëna bu ñoo nekk seen i kër liggéey boobu ñu ngi ko tàmbali woon le 16 août 2024 bi nga xam ne jiitu na taw bu bari bii nga xam ne ci lañu toll loolu nag day tekki gis-gisu suñu at yi ak yërmande joo xam ne ëmbal na ko nit ñi ba teeral koo tàmbalee waajal loolu bi mu amee tamit ca saasa rek ci ci loxo ak ak yeneen mbokk taalibe yoo xam ne buñ leen wooyee jox nañ ci seen i participation ba fi mu millions defagul nañ ko ci kër googee dugal fa ndox dugal fa courant def fa ay dëkkuwaay yoo xam ne toll na ci juróom benn borom bloc bu ci nekk am lu toll juróomi néeg yoo xam ne bu ci nekk juróomi mètre la ci ñetti mètre cinq mètres sur trois euh, loolu mooy lañ fa jëkk def waaye ginnaaw bi tamit état bi am na lu ndax laataa taw bii di am ni ministre de l'hydraulique yónnee woon na fa ay lamp yónnee ay toilettes waaye démb tamit euh, wala ba ci démb ginnaaw bi euh, direction DGPI ginnaaw bi ñu ñëwee fii bañ fa jógee ñu yóbbu nañ fa armée bi ak gendarmerie ñu installé fa ay tentes yóbbu fa ay matelas loolu tamit danañ ko lim ndax lépp dañ koy daal di jébbal junatu li man nadal bu dee lu mel ne armée yóbbu nañ fa fukki tente yu mag yóbbu fa euh, ñaar fukki matelas matelas yu fort yoo xam ne épaisseur bu mag la am yaatoo 90 yóbbu fa luy tolloog ñaar téeméeri lali campagne bu dee gendarmerie ñoom lañ fa jot a yóbbu toll na ci juróomi tente yu mag yóbbu fa juróomi téeméeri lal yóbbu fa ñaari junni matelas matelas yi ñuy wooyee merkat loolu mooy la nga xam ne moom la fa waa gendarmerie jot la fa jot a nekk ci aw nit fi mu ne tolloon na ci ñaar fukki nit ak téeméeri nit ak ñaar fukk ak juróom téeméeri nit ak ñaar fukk ak juróom séddale ko ci ay famille yu wuute yoo xam ne recensé nañ leen ba am ba am seeni seeni seen i seen i identification xam naa sax wax nañ ko gën a parfait euh, fi mu ne nii wax ak am na lim bu binduwaat boo xam ne toll nañ ci juróom-ñetti fukki yoo xam ne ñu nga fay binduwaat war a dugg ci tente yi moom lañ nañ moom lañ fa def démb jamono ji may waxee tamit daayira maçon yi ña nga fa di fa tabax ay toilettes ndax toilettes yooyu bi dafa nekkoon baax na naam waaye nag bu naree xaw a yàgg te ñëpp mënuñ koo jëfandikoo doon na laaj bi delluwaat sax ay bloc de yoo xam ne ñaari bloc la bloc bu ci nekk war a def euh, juróomi euh, euh, juróom-ñeenti toilette moom jamono ji may wax yéen ni ko fay tabax daayira électricien bi tamit ña nga fa ndax tente yooyu nga xam ne moom lañ fa installé démb te mu jógee ci armée bi ak gendarmerie ni nga waxee woon rek te jaaroon ci direction di yor wàllu gestion ak prévention inondation ñoom tente yooyu ña nga fa di installé courant ba ba nga xam ne ku bëgg a taalub lamp wala nga bëgg a am bokk na ci tamit li nga xam ne danañ ko jébbale fii mooy fukki kër ak juróom yoo xam ne am nañu woote moom Touba ca kanam bindu woon ne kër yi disponible ngeen ci bëggee dara ñoo xam ne ndox daan nañu woon seen kër yooyu sëñ Mame Mbaye Sylla bi moo ko doon recensé liste bi mi ngi fi daañu leen ko daañu leen ko jébbal euh, ñi nga xam ne tamit bindu woon nañ ci Touba ca kanam bu sàkku ndimbal benn ñuy sàkku seen kër dafa yàqu wala ñu am jafe-jafe ndox ba génn wala ñu ñu nekk soxla tey waaye soxla nañ kilifa dimbali ñooñu toll na ci deux cent quarante six famille yoo xam ne ñoom it euh, liste baa ngi fi daañu leen ko euh, jébbal incha allah bu ko defee nag bu jëm ci don yi nga xam ne jot nañ koo jot Serigne Boub Dieng yónnee na ci Touba Ca Kanam fukki toni ceeb euh, Anta Babacar Ngom yónnee na moom it fukki toni ceeb sëñ Makhtar moom sëñ Modou Moussa Dieng yónnee na juróomi toni ceeb ak juróomi toni dugub Euh, waa kër Serigne Gueye yi njiital Serigne Modou Gueye yónnee nañ juróom-ñaari tonne ceeb ma ko doon wax sëñ Issa yi nga xam ne moom la sëñ Mamadou doon wax ak bàyyi ko ci euh, Bougane Gueye kon yooyu mooy yi nga xam ne moo dajee bu ci liggéey bi bu ñu tàmbalee léegi ci loxo Touba te bis na a tey Touba Ca yëkkati ko dugal ko ci biir kuréel yi nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Moustapha samp euh, lu weesu loolu tamit leneen dama xam ne ñëw na fi danañ ko indi ci kuréel bu ko defee nag doxin bi nga xam ne moom la mboolum Touba ca kanam moom mu daan doxee gerte aju loolu moom kuréel ci dëgg fi mu ne ngir mën liggéey bi nga xam ne moom lay sant sant diiru euh, liggéey bi jeex te mooy li ko tax a wax mooy dimbali nit ñi ci jamono ji ci tolluwaay bii bu ko defee bu jeexee nag ñu wéy di delluwaat ci la ñu nekkoon fas yéene àndaat ak yéen nañu daan àndee ak yéen ngir ne lépp day liggéey sëriñ bi di toll sëriñ waaw tey bu ko defee maa ngi koy fàtte nit ñooñu ma wax léegi ne toll nañ ci téeméeri nit ak ñaar fukki juróom di dollikuwaat juróom-ñetti fukk te am na ñeneen ñoo xam ne danañ ñii di dollikuwaat ndax boobaag léegi ñu ngi bind ñooñu tamit ci kanam dañ leen a jëloon en charge ci wàllu baree bari ba ñuy génnee seen i kër lañ yoroon ci dund ko ci yàqu nañ ñenn ñoo liggéey yi doon jox set loo xam ne mën nañ caa togg mën nañ caa dugg ak di ak diw ak duñ mën a duggee ba nga xam ne diggante añ ak reer ak ndékki ko war loo woon ak xam naa dañ koy jëlee si waat ci ci biir nos yi nga xam ne ñu ngi koy ci commission yi yaakaar naa ne loolu dana dana jàpp ngeen ñu mën ngi wàcce foofu kàddu bi sant di ma ngi jaajëf ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Abdou bu toogul nga yëg ne fa toog kat nag koy yabal mu yor ñu xëy di gont di yëkkatee di dóor kàddu yi nag juróom kàddu yu bëri kàddu yu cant doon yoo xamante ne ñun xam nañu ne Touba ca kanam Hizbut Tarqiyyah commune bi yëpp sëñ Touba moo leen sos commune boo xam ne sëñ bi mooy joxe ne diw laa laa ciy liggéeyloo ci Touba gi rek xam ne communal communalisation intégrale moom la Sénégal toll te dañ koy wota waaye fii moom kàddu sëñ Touba mooy mooy mooy fii loolu it suñu borom bu ko def ndigal dafa ëpp doole yeneen ci biir Touba constitution wu Touba ndigal moo ci jiitu. leneen lu ciy topp doon ca topp moo tax dong yëpp képp ku ñu ne sëñ bi joxal na ko ñun dañuy ànd ci loolu ndax si yëpp laa dafa daan wax ne sëñ Touba day li muy def ci ne toppees ko su ko defee ci garab nit ñi dëkk wër ko muy def ci nit ba ñu topp ko it julli ñaari raaka moo ko gën a jafe kon sëñ Touba mën na fekk ab sàmm surat day su mel ni man bu la joxoñee rek ci ngay tàmbalee am maanaam. loolu moom daal moo xam su ko defee ñu xam ne ci kenn ci sëñ bi ñaareel bi tam Touba Ca Kanam ñun amuñu ci lii ngeen indi lépp su leen fi ak la waaye nag sëñ bi dañoo indil loo xamante ne dafa mel ni yokkute na mooy ñett ñoo xamante ne kenn ku ne la nga doon def am nga sëñ bi dooleel na la sëñ bi dimbali na la sëñ bi teg na la ci aw yoon mu boole boole woon naa ko lu mu ci jublu day day indi ñett yoo xamante ne boole gi moo ko indi cofeelu sëriñ bi day jur day jur tamit fii jur na tun bii ngay gis rek tur bi mooy mooy mooy mooy li ñu tuddee bouclier xam nga léeg-léeg jamono noon bu bon bi day am lu muy indi loo xamante ne sonal jullit ñi wala xaddiloo leen wala jàqloo leen rek mooy tax ñu koy def waaye bu ñu defee bouclier doon benn moom loolu muy def du sotti mm-hmm. kon euh, dañu am dañu am garantie ñetteel bi itam day dox suñu digganteeg seytaan ñett yooyu yëpp sëñ Oblade daan na ko misaal bi wax ne euh, ànd gii ma war a ànd boole suñu bopp suñu defee ñooñu jural yett dinañ jural cofeelu yàlla dinañ jural yàlla garantie moom dinañ dugal jural dal yàlla dox suñu digganteeg seytaan cofeelu yàlla gi mooy lan mooy inna allaha yuhibbu lazina yuqaatiluuna fi sabilihi saffan kannahum bunyaanun marsuus loolu mooy cofeelu yàlla garanti yàlla su borom bi mooy walam yaj'al Allahu lil kaafiriina alal mu'miniina sabiila dàq euh, arafu daq mooy walam bu ko yàlla waxee lam doon dàq mooy ne doolu dellu si kon daf ñuy daf dooleel ba nga xam ne kenn yu mën a noot kenn yu mën a tiim ñun ñi nga xam ne dañoo bokk pas-pas dox suñu diggante seytaane nag nee na mooy inna ibaadii laysa laka alayhim sultaan illaa man ittaba'aka minal ghaawin kon sëriñ bi moom lépp nos na kon na ngeen doon doxee ak na ngeen àndee woon ak la nekk ci seeni i xàmmeewuñu sëñ Mountakha xàmmeewu ko la mu la mu denc ci xolu sëñ Mountakha moo tax mu leen di liggéey waaye lii mu wax nii ne nañ ànd kon na xam ne Touba ca kanam lii mu indi muy ay commission muy ay li mu yoroon ci ay jumtuwaayam mooy li nga xamante ne mooy ay stratégie ak ay programme loolu kon nañ ko dugal ci biir commission yi nga xamante ne noo ko ànd ndax commission boo fi tudd Touba kanam ay nitam ñu nga ci biir muy social muy administration muy finance muy commission technique muy commission bi nga xam ne mooy communication kon nañ boole loolu su ko defee loolu lépp ngeen ànd kooku ñoom lépp dina dina gën a rafet dina ne sant nañ leen bu wér ndax ndox yi nii doom la mën a demee fekk na nag ñun danoo weesu sax rafet njort ci yéen danoo am yàqin ndax nit bu jëfee jëfam rafet lool wóor na ci sëñ Tuubaa am tàmbalee ci sëñ Tuubaa loolu loo gis ba noppi ci ñoom mënu koo bàyyi di dégg ak di njort hmm. jërë ngeen jëf mu ngi leen di jottali cantu sëriñ bi ci ci ci di jottali cantu si Abdou Lahad mii ndax lépp lu waay def ci dëkk bi moom mi nga ko defal moom mi nekk maire dëkk bi euh, sëñ sëñ Ibrahima fi toogal sëriñ bi ndax sëriñ bi moo nañu ñetti ngeen de muy Touba ci kanam ak Hizbut waaye maa leen mooy ñeenti tànk la moo tax sëñ bi xew-xew bi am Ndakaaru di xew-xew bu mag boo xam ne doo ko fanweeri at musta am te teewu ci këram ca Ndakaaru ba ca mbedd mag fépp ay gana fay nekk waaye ju jugul fii mi ngi ànd ak moom bis bu set di ñëw fee si suba ak di gont kon yoonu murid moo mobilisé seen Cheikh Mamadou Bachir porte parole këram mënu faa génn ndax déeg yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo nekk gedde ay mag yi boppam ñun ñëpp am na si ñoo xam ne sax kër yi nekkoon dañ caa mujj génn mënuñu faa nekk waaye waaye teewul suba bëccëg ngoon day ne ak ñun ngir xam fan lañ toll ndax dara ñoro ko lu dul ni ñëpp bokk moo ko gën a ñor jëmmi bopp kon jërë ngeen jëf waaw sëñ moom laa doon tudd si sëñ Abdoulaye ak nee naa sëñ sëñ sëñ sëñ Habib bi ci boppam fu mënta teew moom sëñ Abdoulaye bi ñu koy teewal ak yitte ak pas-pas taxum dëgg yàlla ñu ko yàlla fayal jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan an